Sénégal majorité peuple bi jox encore mu toogaat ci xilaaf Sénégal juróomi at yi ñu te defe naa lii mu wax tey wax ju dal xel la ak wax buy dugg ci biir xol la parce que nee na moom defu bëgg di dialoguer ak ñëpp di waxtaan ak yëpp donte mooy président de la république moom ubbi na xolam tàllal la loxoom pour ñu mën a waxtaan te li gën a rafet ci mbir mi dafa ne biir waxtaan boobu dina si woo ki nga xam ne mooy président Abdou Diouf dina soo ki nga xam ne mooy président Ablaye Wade ñoo ko jiitu woon ci xilaafa Sénégal Abdou Diouf nekkoon fi ñaari fukki at Ablaye Wade nekk fi fukk fukki at ak ñaar mu defe ne ñooñu am nañu tuuti loo xam ne war nañ ko ko indil moom indil ko seen réew ak seen askan muy Sénégal ak sénégal yi loolu dañ koy rafetlu ñu yaakaar ni nag ñii mu woo pour ñu ñëw ñu waxtaan muy opposition muy force religieuse force sociale société civile ñooñu ñëpp incha allah daañu ko wuy si ndax réew nag lay doxee réew il ñu koy waxtaanee li nga xam ne nit ñi dañ koo bokk dañ ko war a wax waxtaanee jëmee suñu démocratie si kanam rafet na mu gën a rafet mu gën a taaru demee suñu réew ci kanam mu gën a toog gën a defaruwaat ndax lii ñu yor moomuñu ko dañ ñu ko jox te puso bi warul réer suñu loxo ñu ne dañ ko war a tàllal jox ko suñu askan bi war a ñu. est-ce que dialogue boobu mën nañ ci xaar tamit libération kii di Karim Wade. Euh, waaw dialogue boobu moom lu ne lu ne mën na si am ndax loo gis ci àddina rek waxtaan a gën waxtaan mu jàmm mooy indi déggoo mooy indi dal donc loolu bu amee defe naa lu nekk ngi ci biir waxtaan boobu te waxtaan boobu mun naa jur lu ne ci jàmm Sénégal muy njëriñu Sénégal.